waaw sama teewaay tey ci Kaba teewaayu sant la teewaayu kontante la parce que dama am fierté ci am une association comme CERT muy cercle des élèves et des étudiants des ressortissants de Kaba et environ euh, dama kontaan ci seen taxawaay ñaari yoon dama kontaan parce que li ma gën a ñor man li bokk ci li ma gën a itteel mooy defar doomu aadama defar doomu adama yaa ngi ko mën a jaaree ci jàngal ko donc kon xale yi bu fekkee dañu gëm li ñu nekk gëm seen bopp ba boole seen bopp def cercle bu mel nii di taxawu seen dëkk loolu daf ma doy mbégte également yemuñu ci nag tey ñu jël ko daal di koy bàyyale ndeyale ko sama ñaari responsable yoo xam ne dañu bokk ci ñi ma gën a jege te sës ma rek donc loolu moo tax tey ma teew fi façon teew bi ma fi teew muy kontante di am fierté bu baax ci sama senes parce que jeunesse la am boo xam ne nii ku leen xool tey xam na ñu takku lañu ñu dëggu lañu ñu gëm seen bopp lañu waaye ñu bëgg seen commune lañu. waaw ñu ñu wax seen diggante sa diggante ak ñoom naatable wuñ ko mais tey wax nañu bu leen président jàppale ñu ñu jël parce que mairie mënul def lépp euh, lan ma waaw dëgg la maa ngi am mairie bu xam ne bu bu néew euh, ay ressources la waaye bu am ressource bu am solo la mooy am na ressource humaine. donc ressource humaine bi ma am bu ma ci président jàppale jàppale ci sa jàppale ma ci sama jeunes yi jàppale ma ci sama jigéen ñi jàppale ma ci infrastructure socio de base yi dinaa am commune bu mucc ayib incha allah parce que commune mën na ñàkk koom-koom waaye mën na am koom-koom mu rey te man am naa koom-koom mu rëy mooy am naa ay xale yu tege ci yoon am naa ay jigéen yu tege ci yoon. c'est parce bien que nag tey bokk na ci li ma gën a soxla tey. sama xale yi ñu am fu ñu jànge dèjà CM de ba tudd nañ ko léegi mais man am naa loko yi am na am naa loko mën naa ko équipe équipé il ne reste que président dimbali ma ci ay jàngalekat IEF ak IA accepté ko CM dëkk ba ubbi ñu liggéey parce que parce que wax dëgg yàlla xale yi lu ñu bëgg-bëgg jàng waaye ñuy déparé fii dem xombal dem njaxu dem Bambey mais yàq na njàng ñu bari ci samay xale yoo xam ne mën na am sax ëllëg ñu naroon a doon ministre wala ay avocat wala ay docteur yu sori réew mi te tey mënatuñu jàng beneen bi itam mooy bëgg naa président jàppal ci yoon bi du ma dañ di ko ko wax ak fu ma mën nekk. commune de Ndiéyène Sarax mooy benn commune boo xam ne pour nga dem ci hôtel euh, municipal bi mais da ngay jaar ci rang bi taq tilim salté loolu Sénégal war na ko weesu département Thiès weesu na foofu benn commune la ci biir département maa ngi koy woo beneen bi ma koy wax nag ne ko ñun ñu gëm suñu commune la ñu gëm suñu communauté la communauté la loolu moo tax pendant quatre ans mu di nu tàllal loxo tey wuyu ji nañu ko jox nañu ko loxo waaye dañ ko jox loxo ngir benn objectif seul bu amul deuxième mooy mu taxawu commune Ndiéyène Sarax voilà di euh, di ngeen koo àndal euh, objectif boobu ndax dañ koy méngaleeg mu taxawu leen euh, ak élection yi ñu dëgmal wala yéen moom laxasu ngeen pour jëm si élection yi. non nun nun xamuñu chantage nun duñu chantage kilifa parce que kenn duñu chantage moo tax dañu ànd ak moom pour taxawu suñu askan. élection yi bu dikkee nan daan def ca élection yi la ñuy élection la ñuy def nun mënu mësuñu perte élection yaakaar nañ ci baaxu yàlla na ku fi këpp sa ndënd te àndoog nun dina lu dina lu lay jàggi ruur donc macha allah commission bi nga xam ne mooy euh, defar carte d'identité yi ñu ngi ci biir hôtel municipal bi mm-hmm. euh, fi mu nekk nii euh, population yi ñu ngi inscrire bu baax a baax a baax mm-hmm. voilà président du ñëw bu fi duñ la laaj sa njaboot ñëpp yaa leen njabootee am na démb ñuy wax ne si juyoo da leen kalaame ba yóbbu leen si yoon loo ciy leeral. non xam nga mag mu nekk ci këram. njaboot nga léeg-léeg mu am ci ñu ci jàdd. léeg-léeg da ngay taxaw jàpp ñiy jàdd yitt leen pour ñu dellu si waat ci yoon. dafa am ñu jàdd ñoo xam ne li ñuy def ak la ñuy wax jikko nanguwu ko yar nanguwu ko teggen nanguwu ko te man en ma double casquette en tant que chef religieux li ma war mooy bu askan bi amee ñu di ma jubalaat leen loolu moo tax ma jël leen teg leen ci yoon. Mm-hmm. mais laa jabootee xaajuwuma kenn. Euh, yàlla dogal na man sama commune amul sax opposition boo xam ne bu ñuy wax la opposition bi fi nekk moom daanaka damay coppati rek sànni ca àll ba mu dem. lajaluñu ma ci dara. si sa biir mouvance présidentielle ñu ngi wax euh, également ku ne na ndaw yu fi am ambition. Mhm. bu ma xalaatee ki jiite ndaw euh, COJER ci sama commune la bokk mais seen diggante. non diggante bu da tax la ñëw na ba déclaré publiquement ne mi ngi ci sama ginnaaw bu ma joxoñee mu joxoñ bu ma yëkkatee tànk mu te loolu mu nun amuñu fi benn problème politique na président xelam dal te mu tëdd nelaw. waaye mu fàttaliku waaw waaye mu fàttaliku nu parce que looloo tax nu ànd ak moom. voilà merci. di sant suñu marraine maman Amu Diop mu ñu teg sore na lool se sentir nañ ko ay gone lan waaye ku ñu ku ñu jàppale xam nañ ko ay gone la ku ñu xam nañ ko di sant bu baax suñu parrain tamit xam nañ ko suñu grand la fépp mu ngi siy jàpp si ASC yëpp mu ngi siy jàpp bi des nag li nga xam dañoo gën a neex si moo ñu jëw bés bi monsieur le maire de teew loolu moom dañ si sant yàlla bu baax te di ko sant ndaxte may nañu may na nañu ñu gën a xam ne ñun ñu ngi ñuy bàyyi xel tax na ñu ñun suñu suñu doon def fukki dërëm su doon def fukk dañuy continuer ba 100 pour cent donc monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant si gël nga nu suñu kanam yi naaw le si gël nga nu suñu kanam dëgg te lépp ki nga xam ko koo gis nga xam ne monsieur le maire mi ngi si ginnaaw ay ndawam yéen élèves ak étudiants lan mooy seen taxawaay lépp ñu ngi siy dox lu wàllu économique social et éducatif si yaakaar naa si ñett yooyu la basé wu suñu jàllee si wàllu éducatif chaque année on organise des cours de vacances cours de ñi nga xamante ni xale yi no am ay problème ay lacunes parce que maintenant ñu ngi wax naan baisse des niveaux des élèves chaque année euh, chaque euh, vacance dañ koy organiser presque un mois laaj ñu si dërëm cercle bi mooy ñëw étudiants yi ñëw taqalee def seen i cours ñooy jënd craie bu ñëwee ndékki gerte caaf ñoo ko jëndalee laaj ñu si dërëm ñu ubbi classe yi dañuy dikk da koy jaar sax villageois dañuy dem tool dañuy xëy 6 heures matin matin duñ wàccee 10 heures taqale ba wàcc 10 heures ñëw toog fi ba 2 une heure et ñu wàcc. soo ko demaat tool kon xam nga kon loolu am na engouement am na volonté boo xam am nañ ko si bu weesoo loolu ñu ngi jàppale ñi nga xamante ni extrait de naissance da leen jafe élèves nga xam d' examen nga ñu bëri seen njàng yàqu ndax loolu lu jóg ñu ngi xeex saa ñu ñëwee ñëw si gis directeur bi na ko wax ñu ñi nga xamante ni ñooy priorité ñoo nekk si classe cm ñu amul extrait mu wax ñu ni ko ñu jóg si xaas suñ tànk tuubéy ñu jaree def suñ xaalis def suñu des nag ñi boole élèves étudiants ouvriers tax na bi mais tamit lépp li nga xamante ni soxla nañ ko mooy ñu booloo ndaxte mbooloo mooy doole te lii ñu am tey ji mbooloo moo ñu ko may sentir na jëpp ñu ngi fi kaba amul xaaj amul seen amul mag amul ndaw ñëpp ñu ngi jàppale. mairie bi mënul def lépp donte seen diggante ak monsieur le maire yéen war ngeen ne ko benn la tey la ngeen wax nag président de la république bi nga xam ne aussi pour yenn développement yi waaw ñu koy wax président la république développement c'est à la base te les villages ce sont les bases. loolu dañ koy wax développement si base lay tàmbale ñu ngi koy wax ni ko mu jàppale monsieur le maire ndaxte xam na ne commune bi amul benn doole boobu war a am tax ñuy wax donc te réalisation yi xam war nañ ko fi def bëri na te loolu yëpp jeunesse bi ci war ci ñoom la war a desuwaat te bu yëkkee jeunesse bi tamit yaakaar naa ressource bu nit mën a am muy or di pétrole lépp lu mën di doon jeunesse moo ko gën jeunesse moo ëpp doole lépp ndax lépp lu mën di doon jeunesse bi ñoo mën a dem ëllëg ba réaliser ko kon monsieur le président ñu ngi lay ñaan nga jàppale suñu maire ñu suqali suñu commune ñun ñëpp ñu mën a dem de l'avant Sénégal émergent boobu ñu tàmbalee ko fii jëm kaw Yacine Mbaye laa waaw des jeunes fii ci Kaba waaw bokk ci politique yooyu waaw tey euh, yow ak soxna ko mi ñu jël leen tànn leen euh, bàyyile leen euh, gone yi ñu def tey xamunu ko parce que man ak soxna umu danoo yàgg dem avant li nu boole xañ na ñoom danoo laayul mais man ak ummi benn lan ummi mënta dem sans man man maa dem sans ummi parce que boo xoolee ci ginnaaw avant ñuy dem ci monsieur le maire nun ñoo fi àndoon di politique maa ngi moom ci biir dëkk bi ñuy rayante di rayante di rayante ba sëñ Fallou tàllal ñu loxo ñu ànd ak moom dem ànd wëlbatiku ànd ak moom dem di liggéey kon soxna umu ak man moom benn la duñ ñaar waaw. waaw léegi euh, yow yaa wax ci ndaw yi bëgg daal ku si jàppale ngeen jël. fan bëgg nu jàppale ne fii bari na suñ première priorité ci Kaba fii mooy CM de Kaba. élèves yi élèves yi sonn nañ jóge fii di joge fii nii di di dem di jàng ci yeneen goor yi ci bari seen njàng yàqu na amatul ñi ñi ñi ci des bàyyi nan soit ñu dem CM de Ndiène Sarax soit CM de Ndiaxu foofu la ñuy dem jàng ji di démarche ay kilomètres yoo xam ne nii maanaam seen ñi ci bari bàyyi nan daal ndax amatul les moyens pour xëy di de joge fii huit heures dem di jàngi ginnaaw loolu tamit ci surtout le les financements jeunes yi amul benn financement ñoo ngi ñaan monsieur le maire ci foofu foofu tamit mu fàttaliku jeunes yu Kaba ak les tous les jeunes de la communauté rurale de Ndiéyène Sarax parce que pour ñu jàppale leen il faut ñu maanaam les jeunes ñu financer leen sur tous les projets éducatifs santé et tout et sportif mais en même temps. waaw non ndaw am na ci ñu am formation mais du ñëpp ñaanal tamit monsieur le ministre monsieur le maire mu defal ñu fi ay centre de formation pour les jeunes oui. wax wàllu ndaw également wax ay bërëbu tàggatkaayu yaram ak yu ni dem sport bi ak foyer socio éducatif waaw sport am nañ fi benn terrain boo xam ne nii ñoo ñaan monsieur le maire tamit moom mi ngi ci ay projet pour ñu collecturer ko moom en même temps manqué nañ ay euh, centre de euh, formation comme nu ko waxoon de basketball manqué na fi ay foyer des jeunes aussi manqué fi benn centre boo xam ne jeunes yi dafay mën a tase dafay mën di tase di manqué na ci dëkk bi. waaw euh, leneen lii mooy euh, seen euh, feddale seen colère ak monsieur le maire ak président ndax mën nga ko finde waaw tey jii la ñuy gën a taxaw tey ne ñu ci ginnaaw monsieur le maire ci di xàccandoo ak moom di dóorandoo ak moom bépp bu loolu paa bu yëkkati rek ñu ci ginnaawam jusqu'à la fin. waaw président Macky ñu ngi waajal ay élection mais surtout ak yeneen ak yooyu da ngeen yëngu si politique lu ngeen moom li koy wax na fàttaliku commune de Ndiène Sara. parce que commune de Ndiène Sarax mm-hmm. commune boo xam ne nii maanaam amul yenn ressources naturelles yoo xam ne nii kon war mën a ñëw farlu ko commune de Ndiène Sarax mu ànd ak monsieur le a toog liggéey lim lii di méwétam mu def ko. Euh, soxna Oumou Diop laa tudd responsable politique. waaw fii si gox bi ma dëkk si commune nu Ndiène Sarax. Euh, mm-hmm. mm-hmm. sa diggante ak euh, xale waaw xale yi d'abord dama leen di sant di leen ñaanal yàlla yal na yàlla def leen ñuy mag mag bu am lislaam parce que damay wax ne xale yi man awma seen fay parce que chaque jour ce lépp loo xam ne dañ siy dugg dañuy ñëw si man waxtaan si ak man ba pare jàpp naa ne bi ñuy bi ñuy dugg yaa ngi dégg am ku ne lépp lu ma maman Linguère tàmbali rek ñu laaj ko ci xalaat te mënut a egg rek dañu naan nañ ko emale foofu amul lépp loo xam ne dañ koy def. te duñ ma si boole duñ ma si jiital duñ ko teg si sama kanam loolu ma koy delloo di ko sant yàlla bu baax di ko sant yàlla ak sama liggéeyu ndey parce que yombul yombul pour nit ñi jiital la pour nit ñi teg la fenn fii foog nga perte sa temps foog nga ñàkk fayda fa nga gëm nit ñi fa nga concentré wu si soxlay doomu aadama yi xëy na loolu moo tax ñoom ñu bàyyi ma xel si lu bari waaw. parce que aussi ñoom gis nañ ne da nga leen amal njëriñ euh, du ñàkk ñoom ñu wax ko mais tey. Euh, sabab adduna bi mi ngi dox. Mhm. Euh, buñ la waxoon xale yi Ndiéyène diggante ak ñoom si yan fànn nga jàpp ne yéen a ngi si jóg ak daan waaye bu leen si nguur gi jàppaloon ngeen jël. waaw surtout que sama xale yi seen mouvement bi dama soxla ñu yokk leen doole dama soxla ñu jàppale leen tey soo gisee lu tax ma def lii tey indi ay télévision ci sama ndigalu maire parce que man lépp lu may def ci sama ndigalu maire sama maire moo ma jàppale sama maire moo ma soutenir sama maire moo ma dooleel sama maire moo taxaw ci sama kanam lu nar a ñëw sama kanam mu effacé ko mais sama xale yi dama leen di ñaanal yàlla. président Macky Sall geestu sama xale yi c'est parce que xale yu dynamique lañ xale yu am jom lañ xale yu gëm seen bopp lañ xale yu nangoo jàng lañ xale yu am ambition lañ kon bëgg naa président Macky Sall mu geesul ma sama xale yi loolu bëgg naa ko trop. kon diggante soxna ak euh, monsieur le maire moom yaa ngi firnde loolu monsieur le maire man mooy sama capitaine su nee jogal ma jóg su nee toogal ma toog su ne waxal ma wax su ne bàyyil ma bàyyi. man du ma jiital nit di ko fakkatal maa ànd ak moom nuy xeex ba yàlla may ñu ndam ma jiital ko teg ko ci sama kanam man ak équipe bi ñu àndaloon. booba ba léegi gisaguma monsieur le maire def lenn loo xamante ni lu ma ko mën a reprocher la mu ngi góorgóorlu mu ngi liggéey mu ngi ñuy respecté mi ngi ñuy fonk mu ngi ñuy dooleel gis nga lii tey firnde na ko. monsieur le maire lu ma ko wax su ma tëddoon ba 2 heures du matin c'est parce que man dama texeet damay tëdd ba 2 heures du woo ko téléphone mais daf may jël. wax ak man su fekkente ni amul temps dafa may woo téléphone su paree wax ak man te doomu aadama amul lu dul ku ko yëg te sama mère daf ma yëg sama mère daf ma yëg torop kontaan naa si moom maa ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu sumb yàlla na ko yàlla eggale te mère nag sax dama xeeb nga nekk mère guddi yi ma toll feneen laa lay xool. dama xeeb nga nekk maire yal na la ko yàlla defal c'est parce que jàppale nga sa dëkk jàppale nga sa askan sagal nga ma sigil nga ma. waaw wax nga léegi euh, xale euh, jigéen ñi waaw jigéen ñi jigéen ñi soxla nañ ku leen jàppale c'est parce que man sëñ bi boo gisee lu tax ma gën a sonn mooy que dama volonté wu ne sama dëkk dafa war a jëm si kanam. si côté jigéen ñi si côté sénèse bi si côté première as ba deuxième as man bugguma benn yoon rek sama dëkk des ginnaaw lépp lu may fayit sama dëkk moo tax. président dama bëgg mu financer ma sama jigéen ñi Moustapha Diop bu dee yaa ngi may xool si caméra yi waaye gestul ma commune u Ndiéyène Sirah c'est parce que man ñoom laa am man kabalaay tiitaroo man fu ma dem tànk bu ma fay déglu ba waxtaan bi jeex te déggu ma fa turu kaba duma kontaan surtout que sama xale yi ñoo ma dooleel. ñoo ma suturaal ñoo ma teg si kaw xale yi tey damay toog ba yàgg ma ne nangam laa bëgg rek facilement fi ma ko wax dafay teew ci sama kanam lu jafe lu jafe la ma xale yi defal kon daal sama xale yi sant naa leen de bu baax. kon président euh, na xelam dal bu tëddee na nelaw lépp lu ñëw si kawam balaa egg si kawam damay tëral ba pare ma ak sama xale yi wala kontaanu leen du ngeen tàcc président bu tëddee na nelaw. président Macky président Macky Sall dafa am lu ma naw ci sama président sama monsieur le maire. monsieur le maire dafa gagné poir gagné poir Poire. Macky Sall di ko tàllal loxo monsieur le maire gëm boppam ne man kese ma dem doyul dama bëgg a téye sama mbooloo sama loxo dem wuy ji Macky Sall ñu toog di ko déglu monsieur le maire di porte porte nit par nit. kenn par kenn monsieur le maire bi muy dem si Macky sàll bawul kenn ñëpp la buub yóbbaale c'est parce que moom moo ko may boppam monsieur le maire bu tëddee na nelaw Macky sàll bu tëddee na nelaw. na gëstu euh, ginnaaw waa Ndiéyène Sarax. gis nga monsieur le maire tant mu ngi waxtaan ak Macky sàll Macky Sall xam nooy kan ñun dañuy xam mooy kan parce que suñu maire rek la ñu gëm ñun gëmuñu ma Samba gëmuñu ma Demba maire rek lañu ñu gëm ñun maire rek la ñu gëm merci beaucoup.